What up guys, what up guys, what's up everybody, it's guy. <laughs> yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Jadi kau Ipak J, Ibrahim Ndao, Mustafa Amane, Tabut from Belgium. di ko mooy euh, Aboubacar Diallo and his elder Ismail Diallo you know what I'm saying di ko mooy Black Master Emos the Demo from euh, Canada I got you bro Gin Chess my brother from another mother I got you bro you know what di ko mooy Amadou Dame Diagne sama séeri Kumba ak jawaram di di ko mooy sama collègue yi gars laay bëggee you know what I'm tey sama gars dama xaw a mer nag quoi parce que vidéo bi sànq si jot ay Seydou Diop Fall di wax ay waxi dof dinañ day dal ci Sonko yaa Guy Marius Sagna mais tax jot ma ko ma tontu ma mais dina ma ko jox si commentaire yi ma wàcce tu vois mu li sos sos jox jox ma leen ma gars yi ma coof leen ba Aïssatou Diop Fall laa ñëw di droit de réponse parce que na tu vois déjà moom Aïssatou Diop Fall elle n'est pas ni ma xoolee sortie bi Euh, bu ma xoolee xam comprendre naa la tax xeesalam bi équilibré parce que dans sa tête il elle n'est pas équilibrée hein. nu mu timpi tempé xel bi noonu la bon moom nee question il la posé nee na Ousmane Sonko se prend pour Zoro question une le Zoro Sonko d'avant n'est plus celui d'aujourd'hui il a perdu de son il a il a perdu de son aura incohérence de Sonko parce qu'il a il dit combattre le système et pourtant il salue des gens qui sont qui sont dans le système ou qui étaient dans le système les gens là je peux nommer Ablaye Wade je peux nommer euh, comment dirais-je Atepa moom ñoo le cité hein. ben benn mon Sonko il tire de partout il tire de partout parce qu'il se prend pour tu vois léegi damay apporter droit de réponse ma gars moi, fi may njëkkee mooy euh, Aïssatou Diop Fall dafa wax euh, Sonko day combattre système B. non euh, non non, je vais je vais venir en venir avec Zoro hein, parce qu'il a dit que Sonko il se prend pour Zoro Aïssatou Diop Fall li mu la bëgg a wax mooy Sonko il, il se prend pour Zoro là you right you are right you are saying the truth Sonko il se prend pour Zoro léegi dama la ñëw la configuration Zoro Zoro comme ko xoolee tey c'est un personnage comme xam ne dit, c'est un héros il s'infiltre qui se fait justice lui-même tu vois, pour, pour, pour, pour, pour euh, qui fait justice qui fait justice lui-même euh, pour, pour, sauver, comment dirais-je, euh, euh la, société. Parce que quand la société est, est, dirigée par, euh, par, par des, des, des, malfrats, des hommes qui, qui, qui, qui, qui, qui, font main basse sur la justice, il faut un bon sauveur pour nous, comme Spider-Man, comme comment dirais-je, Superman, comme Zorro tu vois, pour nous sauver, nous, donc, non nous sommes quoi. Parce que dès que vous avez dit, madame, justice, pour pour pour baadolo la euh, pour badolay la du pour buur dëkk wax ni amul justice donc on a besoin d'un Zoro et Sonko illustration parfaite de ce Zoro pour ñëw sauver ñu laal dëgg bi wax ko sacrifier boppam donc Sonko mooy Zoro foofu yoo raay bu lo nekkoon sax nga ni Sonko se prend pour Spider-Man l'homme araignée bu loo nekk se prend pour euh, comment dirais-je euh, Superman le Superman d'accord parce que c'est un sauveur en fait. Faut moom d'accord Son Sonko se prend pour Zoro parce qu'il est Zoro parce que depuis bi amul a plus d'opposition l'opposition est inexistante ñu corrompre nañ leen nous menacé lui il a perdu son emploi quel courage il a perdu son emploi tu vois ñëw xeex pour son donc Sonko c'est notre Zoro Ousmane Sonko Zoro Ousmane Zoro Sonko and we love him ce seen si loolu nga appelé vraiment content naa foofu léegi deuxième bi moom incohérence parce que day combattre non deuxième bi damay wax moom euh, Sonko day day combattre système bi tu vois dik xeex loo xamné donc man ba damay sori damay rëf damay ni may yàgg surtout yàgg na joxe définition système donc ay Aïssatou Diop Fall te li li lii vraiment professeur dañ ko war joxe sujet bac c'est quoi le système dont parle Sonko parce que li dafa dafa ouvert dafa ça a ça a l'air facile mais c'est pas facile parce que mom néna Sonko day qui euh, euh, day day day combattre système bi mais mi ngi ànd ak ñu ànd système Aïssatou Diop Fall nee le système si on la joxee son euh, système mooy le lobby wala nga une mafia le système c'est une manière de faire bu ne moom dafa nekkoon si état bi rek système non non quand on parle que les journalistes c'est des corrompus les les journalistes qui euh, sont des corrompus wala les journalistes euh, sont des corrompus wala les journalistes qui sortent de de sont des corrompus hein loolu que je ko dire. Peut-être que la plupart des journalistes qui sortent, euh, qui, euh, qui, qui, sortent de, de CESTI sont des corrompus, mais pas tous. Il y a beaucoup de journalistes qui sont des corrompus, d'où la nerf. ah bu noonu la yow tey yow ay sa yow yow parce que si journalistes sont corrompus du la mais à côté de toi y a des journalistes yoo xam on les paye pour mentir sur coup. ne salafiste la le dara pour nous dire leen xaalis am na journaliste yoo xam tey jii seen plume euh, bu Macky Sall defee dara lu war a duñ ko def parce que état place la ñu kii donc nous, ils sont aussi si euh, système la ñu yow tey ji mën nga nekk benn journaliste tey ji comment benn Pape Alé Niang il n'est pas dans le système mën nañu wax journaliste yëpp ay ay ay euh, euh, kii euh, Pape Alé Niang il nekk du du corrompu Sonko noonu mel bi mi ngi ci entité bi mais dawalu la parce que le système c'est une manière de faire mooy la ma waxoon douanier yi boo waxee douanier on passe automatiquement au vol dinañ ñay sàcc lañ ay dóorkat lañ pourtant y a des douaniers xam ne ils réglo mais ensemble manière d'ensemble dañuy wax loolu comme boo jëlee champ politique ba mais boo xee politique Sénégal ñu ñu ay fenkat lañu la ñu wax gëmuñu ko est ce que Sonko noonu la mel Aswell Ga meloon noonu dafa jub te pense que si la bokk donc bokk ci benn équipe mais taxul nga bokk ak ñoom jikko donc le système c' est une manière de faire c' est un lobby donc est ce que Diop Fall yow yaa si Yérim Seck bu ngeen joxoon c' quoi le système vraiment doo leen am bagan parce que vraiment aayu leen quoi bu ne ñoom système bi la yow maam góor dof bi loolu lay wax yow dof bi loolu ngay wax si Yérim Seck dof lay wax donc dañ leen jox cours malheureusement leen jox cour le système donné un synonyme wala deux synonyme de de système vous dites un lobby une mafia loolu la minuscule groupe buy agir à leur propre au détriment de la société c'est ça le système moo tax ma le système bi ay marabu ñu ngi fii tu vois ay marabu ñu ngi fii ay ay politiciens ngi fii communicateurs traditionnels yi isaan fi ñu ngi ci di encadré seen dën dóor pour ñu ko le système boobu lay wax professeur bi tey ñëw professeurs yi ñi nga xam ne dañuy jaay épreuve yi avant muy génn ñoom ci système bi la ñu bokk policier bi di nga xam ne tey ji moom S Diop Fall soo jàngee non damn mën na déglu après man dama rus tu n'es même pas capable de définir ce que c'est un système yaa séeréer sec boo fi ñaanoo kay ci système bi la bokkoon oh sure yow trois exemples je te donne exemple douanier exemple chaîne politique bi image bi gars yi am ci ñoom donc il ne fait pas partie du système boo demee feneen ak feneen ak noonu noonu donc da ngay am open mind nga mën a développer quoi donc nga bëgg sa gars prochaine euh, épreuve français yi ñu ne c'est quoi le système dont parle Ousmane Sonko élèves vi xaw am sax benn benn knowledge bi quoi mu incohérence bi nag incohérence bo non parce que lolu moy incohérence parce que mi ngi allié wu ak wad ak ak comment dire je euh, Atepa man dama lay laaj euh, wad mo jëkk tok toog tuité ne booy bi boy bi mu rappelle ma jeunesse si fugg bi ci idéologie yi guerrier la quoi mais defal dank parce que gars yi mën nañu la pakastal mais Aïssatou Diop Fall ñu suñu yar ak suñu suñu tradition mais max lo la dang koy uy rawatina na mag bu sédé yow ci rafet bu ñu demee mën nañ ko déglu <laughs> mais duñ ko dégg parce que yaa dafa entre déglu et dégg parfois nga xeexee nit wala nga jotee nit sa papa oola wala waa koñ bi di wax nga leen di jox cëru le droit d'aînesse dem parce cër rek parce bu doon yow sooba rek kese doo dem mais Sonko il est mu dem parce que Abdoulaye Wade tey jii <laughs> nekkatul que président mais mën nañ dem wax ñun parce que il a montré benn estime bu waxoon suñu lu ñaaw duñ dem bu ne woon Sonko c'est un Sonko mi dof la rebelle la li mais lu baax la témoignage ñu ngi leen déglu ko mais ça pas dire qu'on s'allie avec avec le système déjà tu connais pas le système nga naan loolu mooy génne beneen bi nga ne Atepa c'est que parfois man damay bëgg a daw quoi mais Atepa da nga mës a dégg si ay euh, ah, dafa vierge est-ce que nga dégg ñu Atepa ah, moo détourné dix milliards bi wala moo def lii wala moo def lii moo def lii lu muy xeex pour littoral bi et c'est un acte yi brader suñu donc si bu départ bay xam ne kii elle elle elle a vu tout tout faux parce que moo ne pas di ko jaay affaire yi amul amul après mu wax lu ko neexee la amul droit dem te Macky Sall la amoon Arouna Dia sponsor ah ñun du ay du ay du ñoo nekk suñu ginnaaw c'est pas l'agent du terrorisme Atepa c'est un citoyen comme tout le monde ba pare on se partage le sud la Casamance bi bomb man sama trois idoles fa lañ ne sax Casamance bomb de Balla Gaye euh, Sadio Mané Ousmane Sonko c'est une terre bénite ah dégg nga ma ñaan si loolu noonu quoi donc yow da nga war a xool bu baax li ngay def quoi tu vois ñun Atepa bu ñu financé parce que moom c'est un patriote gis na booy boo xam ne tey jii il incarne le patriotisme c'est l'avenir mais il investit son argent bu koy jàppal après que gars yi dama nañu ay lam Sonko léegi chômeur la il est dans le privé pas gis na ne booy bi c'est pour le Sénégal que la production bleue c'est pour le Sénégal qu'on lui qu'on le diabolise c'est pour le Sénégal qu'on lui met les les bâtons dans les roues donc man je le supporte Tu vois, à des fois, bonne personne de santé, il est amour bien ambition politique, t'es mal. Donc, c'est l'intérêt parce que t'as quoi, parce c'est pour le Sénégal, c'est pas pour son intérêt personnel, à des pas sur le poste de ministre. Il sait qu'il ne va pas être président, donc qu'est-ce qu'il en est Mais c'est l'amour du, l'amour du, du, Sénégal. Moi, l'autre là, yap, Ousmane Sonko, bu ko jox da Tay ji bu ñu taayru sax joxoon xaalis là, ma ma weddi Sonko. tay ji bu eh, Mamour Diallo joxoon xaalis là, ma weddi Sonko. Idriss Seck bu ñu joxoon wala mu ñu woolu ñuy dem di ko Idriss Seck on sait toog nañu même même même même même même même même place toog nañu Idriss Seck di waxtaan. est-ce que tax ñu bokk idéologie déedéet parce que boobu deuxième tour la gars yi ñuy sàcc ñu bokk rek parce que c'est une alliance par circonstance mais pas par idéologie par conviction et par par par ambition donc est-ce que tu es limité vraiment tu es limité benen bi mu nek Sonko il tire de partout est-ce qu'il non non quoi il tire de partout Allez demain la Sonko il tire de partout mais cible euh, de toutes les cibles qu'il a de manquer euh, dont euh, yu mu tirer cible yëpp est ce que jëlee na ci ndam est ce que manqué na ci benn ñëpp en plein dans le mi day day day dóor balu karaan la une dóor yu dee il a ouvert tant de front su fekkoon dafay ubbi ay cible di dóor par tiré partout te jamul d' accord mais Sonko dafa war a yor sa mitraillette parce qu'il y' a tellement de cibles ba hein, mag nañ doyul pëf pëf day yéex ñii mitraillette nga di jam front yëpp moo ko tijji est ce que on nañ ko ankaan yàlla liggéey donc bu am bu bëree cible bu ko nekkee mu tiré parce que moom mooy zoro te il a beaucoup d'ennemis te bu mu dalee tiire ba léegi nii nii nii est ce que gis nga benn cible bu répondre te il n'a manqué benn cible donc bàyyi yooyu nga def quoi tu vois naan day tiire fépp nañu day tiire fépp parce que y a beaucoup de cibles tu vois yow sax dañu la war a tiire suñu sens bi mu ne Sonko il a perdu sa notoriété Sonko ba woon du bii tat tat tat tat tat sometimes dama est eh, ce que di Diop Fall ndax yow yow yow yow da ngay Alzheimer wala eh, sa bopp bi dafay taxaw quoi yow ne nga Sonko dafa perdre oral mais Serigne Diouf Fall lu tax Sonko fekk mu def per oral la moo tax ngeen koy ya, jaboliser këru diine yi naan day tere màggal day tere gàmmu terroriste salafiste la ko jaboliser pourquoi vous <laughs> n'avez pas diabolisé Idrissa Seck parce que c'est pas un adversaire pourquoi vous n'avez pas diabolisé Madické Niang parce que c'est pas un adversaire pourquoi vous n'avez pas diabolisé Issa Sall pur ah why always him like Balotelli lu tax toujours Sonko la ñuy diaboliser affaire yi noonu quoi parce que moo fi taxaw tel comme adversaire direct 2024 moo la jël affaire tu vois donc loolu ça ne tient pas amatul oral beneen bi ba ma lay waxaat mooy élection locale yi am ñëpp nañ ne passif lépp lay raafale lu tax ñu koy daxa daxaat ko élection yi <laughs> parce que mi BPD da leen dóor ba ngeen mi BPD da leen dóor ba ngeen tëdd loolu ko amul oral dina daxlooy élection troisième bi mooy maanaam comment dirais-je euh, voilà mooy diaboliser li affaire bi quoi troisième bi mu ne kii dirigé waat Sénégal dafa war a nekk une personne bu xam la muy wax xam fu muy jëm xam fu muy teg tànkam di pataca ay Aïssatou Diop Fall ay Aïssatou Diop Fall yow moom yow gëmoo yàlla de yow de barke alxuraanul karim lii mooy comment dirais-je comment dirais-je lii mooy xam nga quoi yow Sonko si véridique qu'il si véridique sama gars taw taw eh, si véridique Sonko si véridique qu'il si véridique jub Sénégal gépp nangul ko ko loxoom set wet politique zéro franc yow nga ne dangay xaar ba gisaat keneen non ay sa jëfal yow non taw leen ko seet yow yow yaay maanaam xam nu mu la sax yow yaay maanaam ku yàlla may ku yàlla tàcc benn yoon ah feccoo ngay xaar bu ñëw yow li daal Idrissa Seck moo nar la tu risques de miser sur le mauvais cheval parce que yow qualité yooyu nga koy mis Sonko franc parler xam lu muy wax gëm dëkk ma ak yooyu nag yow nga ne loolu ngay xaar Sonko ñëw nga ne yow train bi li booy naan train bi dala fi bàyyi yow train bi dala fi bàyyi non si c'est c'est du train bi da lay bàyyi bu dee da ngay xaar loolu loo xam ne dañ naan mu Sonko jógee fi que dans deux cent ans doo la fekk non je te jure rasu Sonko bi nii du rasu Sonko bi du kii de du comment dire du tisu Macky Sall la yi nga gis si marché foofu ne ñu koy jaay fanweer de non ki xoolal non non bu Sonko jógee fi deux cent ans après dañ koy amaat la preuve en est que bu Thomas Sankara jógee Burkina ba léegi est ce que amaat nañu leneen leneen ba léegi kon yow yow bu Sonko bu la Sonko la ngay xaar nit kooku par sous terre lay fek tout terre la lay fekk xoolal dafa wax Sonko rek muy toog c' est l' abondance c' est la preuve quoi benn li may tëjee mooy moom dafa wax si Guy Marius Sagna ko nee na Guy Marius Sagna ko ko mandaté ku ko porté kii bi am asking you questions nga tontu ma Aïssata Diop Fall when when Mandela was fighting for South African people ku ko mandaté when Malcolm X was fighting for black people in America ku ko mandaté ah Martin Luther King fighting for black people ku ko mandaté non dama leen laaj Mandela bu muy bu muy bu muy xeexal kii waa euh, Afrique du Sud Mandela ko ko ko mandaté dañ defee élection yooyu ñëw mandaté daka demal i jot Malcolm X bu muy xeexal noir yi la mais da ngay gis sa peuple ñun dund sa xol bi di laaj nga ñëw jaayu Guy Marius Sagna ko dal loolu koy jaayu gis affaire yi nii mënoon na toog tey ji c'est un fonctionnaire mu toog gérer am kii yam famille am mais mooy may wax toujours quoi ki créé mu yëpp moom yëpp mais gis na ni son peuple am na ñu mu yëpp mu help ki créé sida moom sida xawul mais gis na ne am na ñuy sida ñuy dégg sida mu leen di xel comme tey ji man man corona am mais su ma mënoon créé corona mooy corona parce que ma ngi peuple daa ngi dafa dof nga ko waaye yow Aïssatou Diop naan ko kam mandat sénégalais yow ko kam mandat affaire yi noonu ko <laughs> non vraiment li booy bi naan c'est pitiable c'est pitiable donc sama gars yi tey loolu la woon quoi yu naan seen mer naa leen trop na sama gars yi boo amee dof bu génne ko xool ma wàccee mu koy wàcce waaye ay dof wàcce parce que xamuñu argument la ñuy wax teguñu ko fen am na ku mënul définir système mënul mënul rivaliser Sonko mënul ne Aïssatou Diop Fall nga ñëw defal mais tu es tombé si bas quoi tu es tombé si nekk nit quoi te nee tey Sonko boo ko contre Sénégal Sénégal day xat ci yow nee nga Sonko amatul aura mu amoon vidéo bi nga dugal TFM xool ko seen seen TFM dislike yi ñoo bëri Sonko boo ko contre xool ay mille dislike ngay deuxième te deuxième yi kan moo koy doon Euh, papa Louf mbaamu ko boobu noonu wala wala kii birima donc bàyyi ngay def quoi suma rek ah sister waaye yi ngeen def waay ah bëgg ma naxasee naxasee parce que man jigéen bëgg ma bëgg ma di curie toujours ak jigéen quoi parce que jigéen c'est la source de vie jigéen moo ñu jur quoi mais bu doon góor ba léegi <laughs> mi bépp di gën naa ko sarala bëggee suma gars